bokk na ci ñi mu tëj waa Pastef foog naa ne euh, ñi nekk rëbës 99 pour cent yëpp ay waa Pastef lañu. waaye du ma fàtte aussi suñu député yi suñu camarades yi Mamadou Niang ak Massata Samb ñoom dañ leen a tëj suite ak li ngeen gis yëpp li xewoon assemblée nationale. ndaw soosu dafa ëmb ñu wax leen ne leen dafa ëmb dégg nañ li ngeen wax. waaye nañu def contre expertise judiciaire ba fi may wax ak yéen cour d'appel nee na moom amul compétence bi te moom moo war a àtte nee na ñu dem ci tribunal de grande instance tribunal de grande instance nag dafa mel ni benn muuma jaay doole ci la Macky Sall nekk depuis 2012